Sall sàcc la Macky Sall la la sàcc yaa fi toog duulal Mame Mbaye Niang mu porté la plainte sa sa sa sa làmmiñ da nga mën a duul yow Ousmane Sonko yaa ñu jàngal ay fen yaa ñu jàngal saaga yaa ñu jàngal wax bu bon waaye du président Macky Sall ndax kenn mësu koo dégg si lu ñàkk fayda kenn waxum bëriwul yow nag mbirim la ci nga woo caméra yi ñëw pour ñu wax tey ngeen di suñu ñaaw làmmiñ démb ba ñuy ba ñuy saagal Ousmane Sonko dañoo baaxoon de waaye tey dañuy ñuy défendre Macky Sall di toj li fa nday Ousmane Sonko tey lañ ñaaw làmmiñ ñaawaguñu làmmiñ sax ñaawaguñu làmmiñ Ousmane Sonko da nga bëgg lëf moo la yóbbee li nga nekkee lépp yaa saagaloo jeunes yi yaa rey jeunes ñun ñii ex man mii ex patriote bokkoon naa si ñi doon cotiser pour di jënd ay cocktail Molotov te xaw ma ko woon bokk na si li tax ma bàyyi leen di leen attaqué ngeen xamante ne maa leen ëpp làmmiñ gën leen réew te li ma leen xamal dafa bëri moo tax ngeen ragal ma di ma laalee bant bu gudd wax naa ko président Macky Sall ku dugg Sénégal dina ñàpp sanday ci kaso bi loolu lépp wax naa ko président Macky Sall yow Ousmane Sonko yaa ñu doon cotiser loo pour di jënd ay cocktail Molotov di jënd ay essence loolu noonu yëpp yaa ñu jàngal ay tuul yow kii Ousmane Sonko yaa ñu jàngal ay tuul yaa ñu jàngal ay fen ku sos ci réew mi Pastef nga bokk ku mën a ci réew mi école Pastef nga jóge loolu lépp wax naa ko président Macky Sall li nga nekkee woon ci réew mi li nga doon def li ngay def loo patriote yi ndax man sa rëcc naa si ndax man am naa sama fulla sama fayda sama personnalité man kenn du ma yóbbu kenn du ma boole ci loo xamante ne bugguma cee bokk ndaxte ay ay ay menaces frégew ma ñente man kenn mënalu ma dara xanaa yàlla président Macky Sall di ngeen ko yàbbi si nii baa ci nele bu ñu dee ay saagakat Ousmane Sonko moo ñu jaral ay moo ñu jàngal ay saaga bu ñu dee ay saagakat Ousmane Sonko moo ñu jàngal ay saaga ndax moom moo taxaw ouvertement ci télévision ne Macky Sall du wax dëgg Macky sàll yow Ousmane Sonko di sa président wu ndey di sa président wu baay bee nekk àllaaxira ngay taxaw ci kanamu télé di osé di ko jàll baat di ko saaga yow kon jàngal saaga. Ousmane Sonko kon yow yaa ñu jàngal saaga yow duñ la fal ñun Amadou Ba lañ bëgg Amadou Ba la ñuy topp Amadou Ba la ñuy far yaa génn sa kër xaaju guddi heure couvre-feu Ousmane boobu Macky Sall mi ngi toog këram ak jabaram unique sama yaay Marème Faye Sall ma nga toog ca këram ñuy waxtaan yow nga génn oyof gaño génn dem Sweet Beauté di katti ji Adji Sarr parce que li la Adji Sarr di ñamal sa ñaari jabar yee mënuñ mën a mënaluñ la ko léegi loolu nga ne complot la nu mu nekkee complot nan la nekkee complot yow Ousmane Sonko dama lay laaj nan la nekkee complot ba ngay génn di jël sa préservatif di ko dugal sa saak pour dem di ko katti jee Adji dangaa xalaat président Macky Sall fan la ne woon président mi ngi woon këram Mermoz président xamu la lijjantiwu la du wax ak yow jamono ji yaay wër di wax ak président Macky Sall yéen bokkoon ci kañot bi yëpp di def ak di kañot di ko jël di ko di ko di ko jëndee ay cocktail Molotov yéen Pastef yéen ñi nekk ci kaw nekk extérieur nekk kii nekk France kii nekk États-Unis kii nekk Canada kii nekk feneen ak feneen xaalis yi ñu doon cotiser loo di ko jëndee ay cocktail Molotov pour ñu taal bus yi pour taal teeru Sall bi lépp eggee naa président Macky Sall te dof dof lu leen ba dugg Sénégal képp ku ci sa xaalis ma sa dem wax naa ko président Macky Sall képp ku ci sa xaalis ma sa dem ci kañat boobu pour taal TER ak BRT lépp xam naa ko yéen xam ngeen lan moo tax ñemewoo leen ma xam ngeen lan moo tax ngeen may laalee bant bu gudd man duma seen moroom duma seen màppandoo boo leen bëggee moroom da ngeen koy uti yéena may dégg Ousmane Sonko sàcc nga violeur nga dulkat nga yaa ñu jàngal ay fen yaa ñu jàngal sosal nit yaa ñu jàngal ay saaga yow Ousmane Sonko yow xam nga ne mu noo nekk suñu président Ousmane Ousmane xam nga ne yow munoo nekk suñu président yow loolu leer na la doo nekk président doo nekk président ku génn daal défendre président Macky Sall ngeen ne ko déedéet Kaliphone waroo waroo défendre parce que yow da ngaa doon saaga mais dafa nekkoon ci parti amoon na droit jël jël défense su parti am ku saaga yéen a ko saagaloo yow Ousmane Sonko ku nekk sa parti saagakat lay doon parce que yow mii ci sa jëmmu bopp da ngaa réew te da ngaa mën a duul yow Ousmane Sonko ku nekk ci sa parti yaa ko saagaloo. ku nekk ci sa parti yaa ko jàngal ay duul moo tax fen rek lañ mënoon Pastef duul rek lañ man sax woon laa waaye ñoom dañoo mën a duul ba tey tey la waa la gën a aay waa Pastef duul rek la ñuy def waa Pastef ñu nekk ci seen panel yi di saaga ay ndey chaque jour Macky Sall ñooñu duñu ay saagakat yéen waa TFM yenn laay waxal waa ex-Pastef yi nekk ci seen panel TikTok yi di def seen live bu euh, 30 personnes ak 20 personnes yooyu noonu nga xamante ne amuñu bës tëjuñu fenn kenn xamu leen ñooñu di saaga Macky Sall matin midi ak soir di duñu ay saagakat mais ñun ñi nga xamante ne mosuñoo saaga nday président Macky Sall di ko jëlal part léegi ne parce que dañoo xam ni que dëgg bi ci moom la féetee duuli ci man Sonko la féetee ñun ñooy saagakat yi waa na neex ma ne kon xamoo leen seen bopp président daal kenn waru ko défendre yaayu Ousmane Sonko dafa gën yaayu makki sàll wala baayu Ousmane Sonko dafa gën papay makki sàll ba président Macky Sall li mu def ci réew mi kenn waru koo wax Ousmane Sonko lan fi def Ousmane Sonko lan la fi def Ousmane Sonko maire Ziguinchor bee bee mu nekk waa Ziguinchor ñu ngay jooy ndax defu fa dara. xaala war a kasiran defu ko fa yow Ousmane Sonko si ka kër góor gi loo leen defaral defaral loo leen dara caga intercontinental nga yow Ousmane Sonko caga intercontinental nga yow Ousmane Sonko tekki woo dara démb ak bërki démb duul rek nga nekk ci réew ku bokk Pastef ay duul doo koy jàngal Pastef fenal nit nga koy jàngal ku bokk Pastef sosal nit loo xamante ne xamaloo ko ko loolu nga ñuy jàngal jàngaloo ñu dara lu baax Ousmane Sonko ah tey Macky mooy toog ak saagakat yi mais saagakat yooyu noonu Ousmane Sonko moo leen jàngal Macky Sall am na droit jël saagakat yooyu noonu yeddaat leen teg leen dans le droit chemin Macky am na droit boobu parce que papa baax la vu que duukat bi moom Ousmane Sonko day jël nit ñi di leen di leen saagaloo di leen dulloo di leen fenloo di leen gëmal gëmloo loo xamante ne amul Macky Sall moom mi tëddee njaaxaanaay baax bay bëgg a dee nekk papa yi ñëpp mu jël saagakat yi fas yéenee leen defaraat teg leen dans le droit chemin ndax moom rancunier wul bonul <laughs> man dafa am ñenn ñoo xamante ne gis nga gentleman du wax ci ginnaaw jigéen yéen waa TFM bu fekkoon da ngeen am fit rek waroo leen woon wax sama ginnaaw parce que boo leen duulee seeni ay duul man nekkuma fa pour pour pour wax parce que yéen boo leen fenee seeni fen ba teg dinaa leen laaj ñaari saagakat yooyu ngeen ne lañ président Macky Sall daf leen résevoir ñooñu fan lañ jóge ak kan moo leen jàngal saaga question boobu xam nga doo leen ci tontu question boobu xam nga doo leen ci tontu mais Ousmane Sonko moo ñu jàngal saaga. Ousmane Sonko moo ñu jàngal ay duul Ousmane Sonko moo ñuy jàngal wax bu bon Ousmane Sonko kase Ousmane Sonko kase kase kase visibilité ak ay m daf ñoo jaral ñu gis ay duul ba pare dëgg ci suñuy tànk man bu ma bëggee am visibilité force dama koy am bu ma bëggee am bës force dama koy am bu ma bëggee yëngal gém bi dama koy yëngal ngi nii bëkki demoo njaay dëbb réew mi ba mu ba mu ba mu mel ne suul di wax toog ci parti Pastef di duul xam dëgg ba pare teg ci sama tànk jaralu ma ko man bu ma bëggee am bës dama koy am bu ma bëggee yëngal réew mi dama koy yëngal mënoo leen ko kenn xamul leen amoo leen visibilité man dama koo am bu ma waxee nit ñi dañ ma déglu force nag léegi luy problème bi dama ne léegi luy problème bi <laughs> damay laajte rek luy problème bi yéen daal ku génn ex Pastef rek ngeen ne ko dootoo amati vue dootoo amati ay m dootoo xawma lan yéen Ousmane Sonko ñun ñoo koy may visibilité ndax ñun ñooy ñëw ak suñu wërsëg di ko waxal nit ñi di ko gën a xam bu doon moom ak moom dong moom kataate rek la mën amul amul amul dara ci yàlla Ousmane Sonko bu amoon dara ci yàlla du mujjee kap kap kap manuel du mujjee sébi ko taan ñun bu ñu bëggee am bës bu ma bëggee am bës bu ma ko bëggaatee te bës bi jeexagul sax dëgg yàlla dama cee sonn trop sax. dama bëgg ngeen bàyyi sama der bi mais bés buñ ko bëggee du ci parti Ousmane Sonko bu xeeñ bee nga xamante ne ay dul rek la ñuy def déedéet du foofu lañ koy amee man bu mu bëggee yëngal géem bi koy yëngal ñëppay wax démb damaa waxloo journaux yi démb damaa waxloo mag ñi démb damaa waxloo xale yi jeexagul sax bërki démb démb ak tey ak suba xam naa ne semaine bi yëpp mën ngeen di amee di ma du di ma duulal xam leen ne ñun buzz lijjanti wuñu ko bu ñu bëggoon buzz yéen ñi doon wax ne que Ousmane Sonko dañ ko dañoo nekkoon ci moom pour am buzz ak xaw ma lan ak lan ak ñun dañoo dañoo soxla utee si ko Sonko buzz Ousmane Sonko lan la ñu ban buzz la mën a may ñun bu ñu bëggee am buzz ñun ñoo ko utee suñu bopp am nañ talent boobu am nañ talent boobu donc foo ko ngeen arrêté. foo ko ngeen arrêté waa Pastef luy buzz luy buzz yéen yéen a mënul am buzz yéen waa Pastef yéen ñi nekk ci seen live yooyu noonu vingt personnes ngeen di am di saaga Macky sàll suba ba guddi yéen yéen a soxla buzz mais pas ñun yéen a soxla buzz mais pas di duulal nit nan ko daa saaga mais génne leen saaga yi man di démb ba léegi maa ngi xaar ngeen génnee saaga boo xamante dama cee saaga président Macky Sall démb ba léegi loolu laa nekk di xaar ngeen génnee ay ay vidéo yoo xamante ne man Awoush dama dama si doon saaga président Macky Sall